bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu fas yéene leeralaat ñaan gu jóge ci sëriñ alxasan salaam mu di allahu rabbi muhammadu nabi kaabatu xiblati quraanu dalili islaamu diini sëriñ alxasan salaam joxe woon ko ca tiwaawoon ci kuñ kër ku ñu wax ustaas alxasan seen ci teewaayam ak njaboot gi mu xamal leen ni képp koo xam yaa ngi koy def ginnaaw julli farata yi julli juróom balaa nga jug nga toog nga def ko bis boo faatoo ba dugg bàmmeel buñ la dee laaj lii lay laaj waaye buñ la ko dee laaj suñ boroom day yabal ku ko tontul malaaka bu ko tontul ci biir bàmmeel ba doo am jafe ñaan gi nag am na nuñ koy defee niñ koy defee moo di boo jullee farata julli juróom yi bu ci mën a doon balaa nga jug fi nga toog nga mel ni kuy kàbbar joxoñ sa kanam daan ne allahu rabbi jël sa loxo teg sa dën daan ne muhammadu nabi jël sa loxo teg sa jë daan ne kaabatu xiblati jël sa loxo joxoñ sa côté di joor daan ne quraan dalili jël sa loxo joxoñ sa càmmoñ daan islaamu diini sëriñ bi ne képp koo xam ne sax nga ci lii ba jóge fi boo duggee ci biir bàmmeel buñ la dee laaj suñu borom yow malaaka bu la tontul ba doo ci am jafe-jafe ñaan ngaa ngi jóge ci sëriñ alxasan salaam jëm ci umma islaam bi yëpp képp ku ci jot nanga xam ne ndimbalu su borom la tey ñu ñaanal Seydina Asan salaam su borom yokk leeram ndax dundam gi yëpp njariñ la waaye dundam gi yëpp bëggoon njaam ñuy taxe la dundam gi yëpp sauvetage la woon ci kaw suuf ñuy ñaan su borom yokkal ñu ay leeram taas ci bàkkeem ba léegi yërmande ci su borom bindee woon ndax xam la ne nii kenn xaw ma ci kaw suuf kulu suñu borom ma bind te bind ma loolu yërmande ci jaam ñi yërmande jooju nag mi continuer di law ba léegi lu ci nit jot tam jóge ci moom na xam ne minallaahi la ñëw ci moom mu jëmaat ci jaam ñi ndax nee suñu borom may waxloo li may wax suñu borom ma koy wax loo ma di ko wax kon nag yàlla suñu borom yokkal ñu ay leeram te may ñu dégg ak topp si ki doon jottali kàddu di seen mbokk aadama salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala